salaamaaleykum waa Sénégal tey ñëw ñëwaat toujours vers le mars ñu ñëw seet suñu trésorière association de jeunes femmes stylistes du Sénégal fekk ko fii ci place am HLM borom belle couture ñu lay dalal. Sophia maa ngi lay fay madame Mbacké di nuyu sama clients yi ak sama clientes yëpp. Fathila. Hmm. lan moo la dugal ci ñaw. waaw Sophia boo ma laajee lu ma dugal ci ñaw dinaa ci sawar. bëgg lu rafet bëgg sañse euh, di gis tamit lu ma mësaan a jël coupon bu des ma ñaw ko dama bu yàgg bëgg ñaw ak lu rafet su ma ko solee ñëpp di ma ko laaj faat si laa li nga sol ku la ñawal li ku la ñawal li loolu gën na ma poussé ma dugg ci ñaw. d'accord donc euh, dugg ci ñaw yow lan si avant ma doon dugg ci ñaw Kaolack euh, jàng alxuraan wàcc yenn saay ma daw jàng dem sama place yaay doomu commerçant. Mhm. toog fa loolu laa tàmmee ba ni ma bàyyee jàng dem sama place yaay. d'accord Kaolack yow alxuraan nga jàng. jàngoo école français non non jànguma école français. alxuraan laa jàng. macha si on comprend bien parce sori nga ci foo ci toll am nga ci xam-xam bu bëri donc. Euh, si si madame Mbacké alxuraan laa jàng ak arabe. macha parce que man sama facture sama lepp arabe laa koy bindee. macha allah mënuma bind français. très laay bindee moom laay def sama lépp. Oh. sama carnet sama lépp arabe lay doon. macha allah macha mm. allah euh, bëgg xam aussi nagam le fait que yow alxuraan nga gën a jàng. amul mm-hmm. ay difficultés yu mu la indil ci sa liggéey bi ngay liggéey nii nagam amul ay blocage loolu daal. wax dëgg neex yàllaam gisuma ko ci. Mm-hmm. parce que alxuraan moom. Mm-hmm. Euh, yàlla dafa def boo ko jàngee. mën nañu wax sax ku jàng français du la yóbbul dara. parce que man damay liir sama message damay bind sama message wax dëgg neex yàllaam te maa ngi ciy dem fépp. Euh, di liggéey. ndax sama alxuraan bi laay liggéey. macha allah gisuma ci benn jafe-jafe. macha allah mm. donc euh, aussi nga wax ñu jafe nga xamante ne rencontré nga ko ci sa début liggéey. waaw man nag mën naa wax macha allah avant tout. Mm-hmm. mën naa wax ne comme lii dal nit ñi di début débuté bu metti mm-hmm. wax dëgg neex yàlla am jaaruma ci. Mm-hmm. parce que dama am sama yaay. mu am benn doom bu jigéen kase muy man bàyyiwuma. depuis xale ma nekk xale bi may dem marché di di gérer place boobu xale laa xaw ma dara matul sax 15 ans mataluma sax quinze ans mënu ma téye xaalis mu jox ma place ma gérer ko bi yàlla dogalee loolu am sama frère ubbi place Colobane sama yaay jox ma ko ma dem Colobane jaar Colobane ba yàlla dogal ma ubbi place HLM ma ñëw HLM yàlla di def loolu ba sama yaay tamit manqué waat ay employé Kaolack ma delluwaat Kaolack bi ma delloo Kaolack en 2008 ma am jëkkër ñëw dakaar bi ma ñëwee tamit sama yaay cofeel bu mu am ci man mu ñëwaat topp ma ubbil ma place HLM ma gere ko ba yàlla muy dogal dogal mu yëkkati lu muy yëkkati berma muy sama entreprise Fatsila Belel boutique ak Belel Couture. très bien mhm. macha allah bi fan la jógee ak lan moo tax nga tuddee Belel euh, bi fu mu jógee muy sama frère Laxaat. moom moo tudd Baye Laat ku ne Baye Laat xam nga mooy borom beleel comme moom mooy suñu mag te moom tamit am na lu ñu jàngal ci liggéey bi parce que bi ma nekkee Colobane moom laa nekkal euh, bi mu tuddee entreprise am beleel am centre commercial marché HLM tuddee ko beleel pourquoi pas ñun ñëpp rek duñ def beleel ma def beleel sama frère bi def beleel ñun ñëpp ñu def beleel boutique man tamit sama couture ma tuddee ko belal couture. ci sama frère la jógee. macha allah mm. léegi euh, ci ñaw bi aussi bëgg naa nga wax ma ci nagam yaa ngi ci am ay jafe-jafe ci ñaw en parce que xam nga jaay tissu c'est une chose mais mm. ñaw aussi yi nga xam ne yaa ngi koy def ci ñaw bi. mën naa wax bari na bariwul parce que tamit comme yow yaay wut ku ñëw rek ak jikkoom bu mu indi da ngay ànd ak moom ci noonu. Mm-hmm. kon yaakaar naa soo soo defee lool rek difficulté yu ñu ci am du bëri te man yàlla dogal na ni samay teer. samay raq lañuy doon samay doom barki démb moo njaay xew bi ma dem sama téer moom may njëkke sama doom la kon problème mu téer man mun naa wax ne aw ma ko mhm. vraiment Fatou bëgg nañ nga wax la gën a neex sa parcours sama parcours sama wàllu liggéey li ma ci gën a neex mooy nekk xale nekk ndaw di liggéeyal sa yaay gis nañ fi nag ñoo xam ne dañuy liggéeyal seen yaay ba sonn wax dëgg neex yàlla te euh, maanaam du leen defal yenn yi keroog bi ma sama yaay di ber wax dëgg neex yàlla am yëkkati lu dëgër a dëgër duma ko wax ci caméra jox ma ubbi place jox ma defaral ma place am naa lu ma neex bu baax a baax. Mhm. léegi entre nous en fait sa bul dugg foofu bul dugg foofu bul dugg en tout cas du ma wax sama yaay lim ma jox. Mhm. mais kuy suivre sama Snap di suivre di ma suivre di nga xam ne kii wax dëgg neex yàlla yaayam wàcc ko. macha allah macha allah kon ko mm-hmm. bu baax a baax di ah. mm-hmm. léegi bëgg nañ nag nga wax ñu qualité bi a neex ci yow. Mbacké li ma gën a neex ci man tamit bokk na ci man su ma amee sama nit dama lay def comme sama bopp euh, te ñaaw ma njortu lépp koo xam ne jege na ma maanaam xam naa sax du ma wax sax yenn saa dama ci am lu ma nakkari parce que. yàlla moom li nekk sa xol rek la lay fay maanaam képp ku may àndal dinaa la def comme sama bopp mhm. képp ku may àndal li ma yéene sama bopp laa la yéene te ñaaw ma njott gaaw ma bàyyi xel mhm. moo tax képp ku ma bëgg a def loo xam ne waroo ko def ah xëy na sama liggéey yaay dina ma ci dimbale mhm. mais gaaw ma bàyyi xel parce que pour man li nekk ci man mooy nekk ci ñëpp d'accord loolu mooy qualité bi la gën a neex léegi lan mooy défaut bi la gën a nakari waa défaut bi ma gën a nakari mën naa wax ne tamit du défaut parce que man bëgguma ku may wax lenn loo ma war ci ay biir nit lu la neex nit mën nga ma yedd ak lu la neex mais man ak yow kase mais bu ñu toogee ci biir nit nga wax ma loo ma war wax rek damay écarté <laughs> da nga écarté carrément waaw <laughs> damay écarté léegi sa la sup kanja ah mhm. waaw ah si man doomu ñeeño laa nag yow. Mhm. nekk Saalum Saalum piir mhm. mun na togg bu baax a baax. d'accord mhm. marié am ay doom et tout parle-nous un peu de waa marié madame Tall. am naa njaboot macha allah ñu ngi jàng alxuraan. ma bëgg ñu ñaan leen ñu wàcc alxuraan. waaw jàppale na ma ci sama liggéey bu baax a baax. à part sama yaay. moom la. sa borom kër. Mhm. wala jàppale. bu baax a baax des fois ngeen nekk ci événement guddee wàcc et tout. des fois ñu nekk ci événement guddee wàcc amaana sax day taal otoom ñëw toog wettali la. Mhm. des fois nga voyage yi ñëpp xam nañ ne kenn ku ne booy dem li nga yóbbu macha allah dina la doy mais dëkk ba mënoo ko jeexal. Mhm. liggéey dem jaay jënd bagage affaire yi xaw a tar nga woo ko. mu takkul dëgër yónnee la. kon loolu ki la koy defal jàppale na la. bàyyi la nga liggéey rek doy na. Mhm. boole ci tamit di la dimbale ci alalam. di la conseiller. Mhm. di la jàppale ci sa liggéey. Mhm. maa ngi koy sant di ko gërëm. lan mooy sa force. sama yaay. mooy sa la jàppale na la ci liggéey bi mais li tax nga mooy sa force. <laughs> na. sama yaay mooy sama force. lépp lu ma am rek moom la waaw lépp luy kuy xool Fatou Sylla di ko bëgg wala ngay am ci moom benn cofeel wala ngay gis ci moom leen lu la neex rek ko sante yaayam lépp moom la. Mm-hmm. léegi association AJFS. Mm-hmm. nan nga ci bokkee. waa association bi li ma ci bokkee muy Yacine Thiam sama xarit sama doomu ndey sama lépp moom la idée bi ñëw ci moom. mu waxtaan ceeg man ñu waxtaane ko dox ko wax ko noonu laa ci bokkee. d'accord léegi yow yaay trésorière yan jafe-jafe ci am wala jafe-jafe. waa wax dëgg neex yàlla am ma amaguma ci jafe-jafe te may ñaan yàlla yàlla bu ma ci am jafe-jafe mm-hmm. parce que am na loo xam ne bu la ko nit defalee rek yow faaw nga gore fay leen ko ñoom ñëpp ñu dajaloo xaalis ak ni mu neexee ci xool ñu koy yëkkati di la ko jox fàttali laa yaa ñu doy yaay téye xaalis bi yaay def li yaay def lale kon man waruma def lenn lu dut gore téel leen ko sàmmal leen ko ni jeunesse sénégalaise bi Fatou Sylla la nga jigéen ñi nga xamante ne vous génération waa jigéen ñi Sofia xanaa di leen dolli rek parce que ñëpp am jom soo yeewoo suba teel ba wala ngay dem marché poisson wala ngay dem fi ñuy duggee ba nga taseeg jigéen ñi ñëpp am jom mag xale ñun ñëpp kenn toogatoon di ñaan rek kenn ku nekk côté bi nga yëngu yàlla na la ko yàlla fulal dimbale la jàppale la ci ba li nga bëgg nga am ko mais jigéen ñi ñoom ñëpp am jom Fatou li nga calmé nii est-ce que xam nga man nii laa mel dama yor ay façon yu bari <laughs> ay yu bari laa yor ma yëngal <laughs> mosoo calmé <laughs> le 12 mars lan mooy xew yii Sofia yaa ngi may daw a laaj nag lu ma neex muy le 12 mars le 12 mars Sofia dama bëgg na ñëpp ñëw jàppale ñu parce que seeni jigéen ñoo ko tëgg seeni rakk seeni doom la li tax ñu def ko mooy pour jàppale suñu mbokk jigéen ñi ñi nekk ci prison yi ñi nga xam ne dinañ bëgg def jël wut ñaw ci événement bi te duñ ko am parce que bii mooy suñ première édition bu ñu fesal mais defoon nañ ko daaw génne nañ ay tenues yu baree bari dem joxe ko ci àll bi jox ko ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ngi bëggaat mooy social bi mhm. ñu ngi bëggaat nag yéen ñëpp ngeen ñëw jàppale ñu ngi leen di woo yéen ñëpp mag góor ndaw xale yéen ñëpp ñu ngi leen di woo pour ngeen ñëw jàppale ñu xam ne lépp luñ ci am day delluwaat social parce que association bi social rek moo ko tax a jóg si laa ñu ci gis nañ la loolu macha am euh, benn relation bu jege ak sa yaay macha allah sa waa Sofia sama waajur bu góor nag dafa génn àdduna euh, mais maa ngi koy sant moom tamit di ko gërëm di ko ñaanal la yokk ay leeram parce que papa bu baax la papa bu gën ci papa yi mu ma jàngal alxuraan xamal ma sama diine tànnal ma yaay ji gën ci yaay yi macha allah mu nekkoon mag nag man maa nekk caatam bëggoon ma lool ku ma laal laal ko du nangu kenn ku wax man dara waa madame Mbacke sama dernier mot. maa ngi sant comme ni ma commencé woon rek laay tëjewaat di mhm. sant sama yaay di sant sama yaay di sant sama yaay parce que lépp moom la di sant sama borom kër di ko ñaanal moom it lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp di sant sama frère Matar la mhm. parce que moom mooy taaw jàppale ñu dimbale ñu di sant laxaat ak ndëri bugguma sax lim su ma limee damay jóg maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que bu ma màggoon fekk leen ñu def leneen waa am na jom joo xam ne du mën a nekk ci man mais ba ma màggee ba léegi liggéey rek laa gis ci ñoom mhm. kon loolu rek laay mën a def di sant samay jabaru mag mhm. ñoom ñi ma téyel sama yaay mhm. ba gisuma ci moom leen lu ma nakari parce que benn bu jigéen nga dem sëyi di toppatoo yaay keneen kon ki lay toppatool sa yaay war nga ko sant maa ngi sant sama jabaru mag yi samay sœur lañ ñoom ñoom ñooy samay sœur maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal lépp lu ñu bëgg ci ëttu si leen bi yàlla na leen ko yàlla defal di sant nag samay employé yi nga xam ne ñoom laay bàyyi ci place bi parce que boobu ba léegi amuñu jot parce que li ñu sumb ko sumb doo mën a toog faaw nga jóg dox activité yi ñoom ñoo fi des di wax ak clients yi di waxtaan ak ñoom di ma sàmmal sama alal maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal kenn ku ne yàlla nga dem ba am place bu ëpp bu Fatou Sylla ñaanal sama goro bu góor yàlla yàlla yokk ay leeram di ñaanal sama goro bu jigéen sama yaay la sama xarit la sama lepp la defuma goro doom la ma def te gënale ma sax nag ak ay doomam waa jàppe ma noo xam ne euh, jàppewu ko sax ay doomam di sant tamit sama njëkkee muy njawataal ak satu samay sœur lañ jooyu ma ndax ñoom lu ma am lu ma naqari naqari na leen lu ma neex neex na leen di sant sama rakku jëkkër yi di sant sama magu jëkkër yépp di sant Baba bu ma ko tuddee rek mel na ni tudd naa leen ñoom ñëpp dafa ni dafa ni dafa